sama gaay nak eh, lu graw la nek di imaginer wat ni ci série bi ndax eh, su ngeen baxal que ni eh, ki di avancé waji ko bëggon na jappalé nak moy temps mi génn ci galé bi mën nañu fekk nako nak ci crèche bi nga xamantene ya fo la ki di avancé dal di nek léga té nak su ngeen xolé ni nga xamantene mom la waji doon xolé avancé graw na trop sama gaay ndax lo nonu am lu muy signifie mais nak duñ ci sori ndax ki di Leila sax mo ngi roubé ci pet mais nak sama gaay avancé na bay xel que ni carrément mom mo ngi ci loxo ba légui même bu dé sax dafa ñaan bañ ko may na xam ni carrément moom benn jëkkër rek la am muy Kidi Sadio bis bu ko trahiré les gars ah, ça va moo tax nag Kid Aousia na bañ a profito life am bi te mu tey xam ne am na jëkkër les ah, ndax ku amal ñaari doom ba ñetti sama gars yi loolu noonu nekkatul euh, far nekkatul leneen lu dul jëkkër moo tax nag Kid Aousia na tey te jéem a dellu si ki xam ne moo nekk saadi ndax Sadio soo xoolee changé na carrément Sadio bu ñu xamoon ak léegi nekkatul même les gars ah, ba tax na nag euh, kii di Sadio bis nag bu apprendre que ni euh, kii di Awsiya ñoo ngi koy waaj a doxaanu ndax su ngeen xoolee ne sama gars yi copain bi ni mu ko doon xoolee loolu noonu xamante ne Pilito dafa intéressé wu si keres bi mais nag euh, si kii di Awsiya nag euh, la daal di euh, basé wu moo tax nag ça va se faire dina compliqué trop trop trop bis bu kii di Awsiya tombé si braawu garçon boobu noonu boobaa dina lor ñu bëri dina lor kii di Sadex dina lor doomam yi ndax boobaa dina jéem a jël doomam yi pour yóbbu leen les te sava va man nag imagination rek laa joxe noonu mais nag yaakaaru mu demee noonu ndax kii di Awsiya doful jinne jàpp ko te xam na ni euh, nekkatul xale ba muy tombé ci ay wàllum couple amoureuse les gars jaa ngeen jëf plus d'abonnés et plus de like one love les gars what's